gis gis naa gis naa vidéo yi gis naa ni ñëw nga. waaw kontaan nañu. mais daa ñëwaat sax. ay kontaan nañu dama doon dafay bàyyi bu nekk daal mu ñëw dëgg. kontaan nañu kontaan nañu ñu bëri rek. waaw au nom de toute la famille Seck on est content. te ñun te ñun ñoo bokk la. waaw pour ñu bëri rek. waaw ñu ne soog koy gis nga rek. waaw ah. gars yi maa bokk waaw. dëgg la mais kontaan daal mu ñëw rek. kontaan naa waaw loolu moom suñu papa la. waaw ah, dëgg la benn yoon laa am sa daje moom rek. tempo bu rafet. dëgg la ñu waxtaan ndax may conseil dana yàlla def si ma jàmm ak ak jàmm ak salaam dem teg fa jàmm fekkaat ci jàmm incha allah ah en plus yow da ngaa nag suma suma frère suma xarit nit dox ah waaw moom moom moom dañu dafa yàgg. mais dama changé tur bi de waxu la ko. dafa yàgg fight à ce que ma ma ma nekk ci kanam. mais nit nit nit laa ko tuddee. nit la nit nit. est-ce que doo bàyyi ñu dof bi rek ba ci nit nit bi xam naa du mën a yëngu quoi. boo ko dee nit dof dina mën a yëngu. nit nit nit na nit koo xam ne. dof gi moo tax ma ne ko léegi nit nit daa lay wooyee man quoi. waaye je suis content yéen gars yi mën nañu jàpp lool. je suis content merci merci kontaan naa jërëjëf. mais bon voyage.